التي خبايا جليلا إن الذين بايعوا رسولا بخدمتي قد بايعوا جليلا إن الذين بايعوا رسولا بخدمتي قد بايعوا جليلا هذا عبد الله خادم رسول دنيا وأخرى خدمة وخير رسول لا taalibe yi sëriñ sëriñ sëriñ Abdou Khadim Mbacké moom sëriñ Cheikh Mbacké moo ñëw fii tey jottal si cantuk sëriñ Seex Mbakke way juróomu tedd wi jaarale ko ci buntam bii di sëriñ Saliou Thioune ndigal nee na cant gi nag am na tàmbali waaye amutub yamu nee na pàkk bii di pàkkub koom noonu ko woykat bi waxee léegi day pàkk boo xam ne moom ni mu ko waxee sax mënuma ko ni waxee ndax way la woo xam ni xam-xam bi ci feeñ rek daa doy sëkk waaye nee na pàkk boobu kenn ku ne xam na ni liggéeyal yàlla rek ko taxoon a jóg te ki ko sos di Serigne Saliou da cee jotoon ndigalul samp ko ndigalul sos ko te xam ni moom de lu mu def da ce da cee da cee jubóog suñu borom sëriñ Saaliw lu mu def yàllaa ko ko digal barab bii ku fi teew booy boo nga rafet njort te xam ni loo fi sàkku yàlla dana la ko defal nee na liggéeyal yàlla nag ñi koy def dañuy bari lool ndax kenn ku ne mën ngaa jéem a làmbatoo fu ne ngir liggéeyal yàlla waaye liggéeyal yàlla goo xam ni day ànd ak suñu borom daa wuteeg koo xam ni day làmbatu sëñ Saal sëñ bi nee na yow day yàgg ñi nga àndal yéen làmbatuwu leen ndax bari na ñuy liggéeyal yàlla te mën naa am dañuy làmbatu rek ngir dak mbégum yàlla waaye yow da am ndigalul suñu borom li tax nga tuddee sa bopp sëñ Saal ndigal nee na xam nga ko bu baax ndax da xëy rek tegu ci yoon wa Mbàkke noonu day bëgg nañu ci sa teewaay fii xam naa ni sax li nga ma wax lépp mënuma ko wax ndax lu dikk jàll te na ma ko waroon a waxee sax duma ko ni ma ne waaye Mbàkke sant nan la de barke Serigne Touba sëñ Abdou Khadim yow kat fi mu ne waxuma cantaakoo nii rek waaye addina sépp la safoo waaw ñëpp la bëgg gis nga fii mu ne boo bu ñu génnee sa photo yi ci télé bi ak ci groupe bu cantaakoo nii ñëpp la ñëpp la safoo Mbàkke Mbàkke yàlla nanga fi yàgg Mbàkke yéen da ngeen a yees yéen yéen a mel nu kenn melul yéen yéen ay sakk yéen ay ndam yéen ku ànd ak yéen ndam ah sëñ Sall day xam naa ni day léeg sax nga woo ko waxtaan ak moom waaye bu waxee léegi bu waxee kat àddina sëpp ne waaw kii fu mu jàngee waaw bu ko defee bu génnee bu dikkee mu ne ma sëñ sëñ Abdou Khadim kat laa doon waxal nee na ma nangam ak nangam ma ne ko waaw ah turki jàmm bii xam-xam bii xam-xam mbàkke mbàkke yàlla na ngeen fi yàgg. lool te wér ni ko kilifa yi waxee. c'est-à-dire woote bu toll nii woote bu toll nii bu ko sëñ Cheikh Mbacke wooye woote sunu sang bu tedd bii mu bokk ci ñi mu woo mu yónni doomam ju tedd ji wax kàddu yu tedd yii ci sëñ sëñ sëñ Saal rakkam ju baax jii jottali ko ak cant gii mu sant nun donga yi nun donga yi am nañu cant gu rëy sëñ Xaadim sax ci biir la dugg waaye nun donga yii nag amee nañu sëñ Cheikh Mbacke cant gu rëy ndax liggéey bii dañ koo namoon lool. te kenn ci ñun munu ko lijjanti ba am ko kon jaar gii mu jaar ci sëriñ Saliou Thioune ak doomam yu baax yii ba nu dellu si waat xel koom nun war nañ koo sant junniy sant moom bu nu santee benn sëñ bi bu nu santee benn war nañ koo sant cant gu yemul fenn te nu gore nun ñëpp nan nan gën a gore fii moom sax ku gore gorewul ñëwu fi waxin la waaye nan topp ci ginnaawam te di ko diglu ndax moom kat am na kilifa gu mat kilifa te moom mii sëñ Cheikh jiital na ko sunu kanam te mat na sëg kon nañ leen koy diglu te ànd ak moom lu nu diglal digal nu def te bañ a nekk mukk ci ay tere noo ngi ñaan nag suñu borom bàyyi ko fi te yàggal ko fi liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee woon sante ko sëriñ Saaliwu defee en ko noonu kon sëriñ bi bu ñu añee ba noppi nañu xam ne yiwi na ñëpp dunya wa uxra xismatan wa xayra sol jamaatal yi ma lam yakun wala yakun لممكن يا من له كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من له كن فيكون ملكتني أنت المليك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى جنان بمياه xay bika yaa man xaadali xayra yaa sakkartani nda jami jundika yaa xayra jaarin xadma kastu inda jami jundika yaa xayra jaarin xadma kastu katabtu tazaarusul baaxi وسبعت ملائكة باخي إذا كتبت تزارس الباخي وسبعت ملائكة باخي لسان سكريا وزوري رفخا بالعرس والكرسي نورا وفخا لبي منور بنور الوهيب وخاد لي خير علوم المهيب أنا هو الأرود والبيان لي سلبت ولي بها أيان هرب من كتابة المدور وبعرافي تتخنى الور هرب من كتابة المدور وبعرافي waaw comme ni ni ma leen ko waxee woon rek ñoo ngi fii ci Xelcom Diaga ba tey ci waañ yi nga xam se ne cantaakoon yi ci la ñu nekk euh, ñi daal di fekk fii ki nga xam se ne moo di jëwriñ bi sëñ bi tudd bi nag. Ahmed Fall laa tudd. Ahmed euh, xanaa di santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax tey ñaan mu Muntaxa mu yàgg fi te wér sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Sali mu yàgg fi te wér sëñ Sall ndigal cuun mu yàgg fi te wér waaw ko dundee mooy santaat sëriñ bi ndax lii ba fi sëñ bi nekkee ci kaw suuf da koo sasoon sëñ Béthio ñu koy def ñu toog ay jamono mu mel ni xaw nañ cooyee euh, toog kon bu ñu ci dellu siwaatee dañ ciy santaat sëriñ bi ndax sëriñ bi da moom pour mu jariñ la faw mu liggéey loo la te ku ne xam na ni xel Xelkom gii liggéeyu sëriñ Tuubaa la soo fi duggee rek sëriñ Tuubaa ngay liggéeyal kon bu ñu fi indiwaatee danañ sant sëriñ bu baax a baax a baax ñun sunu dund sunu lépp sëriñ bi lañ ko jox fas yéene koo liggéeyal sunu am-am sunu lépp mu ngi sëriñ bi te ci liggéeyal sëriñ bi lañ koy amee kon bu nu dikkee ci tool yi dañ ciy santaat sëriñ bu baax a baax fii daanaka ñu yeex sax liggéeyuñu ndax mbooloo mu bari démb togg nañuy reer tey jii ñoo ngi ne gisoo ko añ bi ci lan nekk nii waaw di ko séddale te nit ñi pare nañ bu yàgg añ bi rek leen fi téye loolu santaat sëriñ bi la ndax day wane ne rek seen pas-pas ak seen bëgg sëriñ bi moo leen yóbbu ci loolu kon loolu buñ ko amee dañuy koy sante bi ñuy sant sunu sëriñ sunu yaakaar tey ak ëllëg mooy sëriñ Saliou Ndigal Thioune moom mi nga xam ne moo tax ñu jotaat ndigal ci sëriñ Saliou muy sëñ Cheikh mu sëriñ Saliou ndax bu dul compter moom xëy na danay continuer noonu rek waaye daa ñëwaat doon taalibe jibbale boppam jibbal mbooloo mi di déglu ndigal luñ ko sant sant desel ko bor ndax daf ñoo dimbali xel koom gii sëriñ Saliou dafa ni romb ko rek jàll da ko defee ku ko ku ko deful. waxuma laa nag ñu la fay liggéeyloo nga yendu fi fanaan fi kon loolu taw féex la ñoo ngi santaat sëriñ bu baax a baax tey ñaan sëñ Cheikh na fi yàgg lool ba naal yi nga xam ne da koo yéene mu yeggale ko ah sëriñ saa ndax liñ fi fekk ci ay mbana bari na ndax mën nga ñoo wax eh, ci ñaata bërigo ngeen fi jot a ah, daanaka dem man li ma togg rek mot na une tonne cinq cent la ak ñeneen ñi togg ndax fee ngay romb dee ñoo ngi fay togg te ci lim bi la bokk am na ñeneen ñu togg ñoo xam ni bokkul ak ñun ci waa kër gi lañ waaye danoo togg ne la ci kaw waaye man li ma togg rek dem na ci une tonne cinq cent loolu lépp pour mbooloo mi la tër nag yi te sëriñ bee ko def eh, juróomi nag tër nañ ko te loolu sëriñ bee ko def muy sëñ Saal ndigal cuun te yéeneem ci taalibe yi la baayam amoon daa ñëw teg ci tànkam ba tax na ñoo ngi koy sant tey ñaan mu yàgg fi te li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa mu weesu ko ndax am na pas bi am na yar bi am na teggin yi te li tax ñu naaw ko nga xam ne murit gi bu wootee ñëpp jóg yar bi ak teggin yi da cee bokk te ku sëriñ saaliwu wax baayam dafa dem ca sëriñ saal ni ko sëriñ saal mii de dama bëgg nga dimbali ba mu am sa ngërëm sëriñ ni ko moom de bu la toppee bu amee sa ngërëm rek am sama ngërëm te am na ngërëmal baayam ndax audio yi boo koy xool da nga dégg fu ko baayam di gërëmee sëñ Muntaxa mii di yaakaari jaam ñi nga xam ne moo yoonu murit moo ko ne demal teg naa la loxo sëñ Cheikh mii di sëriñam ni ko maa lay taxaw ginnaaw maa lay taxaw kanam kon kii am na wéeruwaay ko ànd ak moom da nga am wéeruwaay looloo tax ñuy sant sëriñ bi bu baax a baax a baax ñi ngi ñaan rek mu yàgg fi waaw. woon na lu ëpp daanoo jàpp ne dimanche danañu fekk waaye bu ñu gisee xam ne liggéey bi ñun ñu fi fanaan daanaka biig la jeex tey jii ci soo bi ñu xëyee dañ doon dajale rek xam nga. gis nga añ yi ba bu fekkoon liggéey nga fi kon ay heure bi ko añ waaye jeex bu mu gaaw a jeex moo tax ñu añ heure bii waaye fàgg woon nañu ba dimanche liñ fi war a lekk xam nga loolu nag sëriñ bee ko def. yii mbooloo moom bu dee benn la indi nañ fukk barki sëriñ Tuubaa ndax ñun niñ ko foogee woon ak mbooloo mu dikkee xam nga xel koom sëriñ Tuubaa ko moom fii toolu yàlla la ku fi ñëw ku yàlla moo la tax nga ñëw fi ba tax na bu nu wootee ñëppay fagaru ñëw ngir jariñu ndax sëriñ Saliou ko wax fii ku fi ñëw jariñu moo tax murit gépp a jóg ba tax na loolu ñoo ngi ciy sant sëriñ bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di leen santaat yéen ñi nga xam tam da ngeen ñëw di wane liggéey bi ndax euh, loolu da cee am solo ndax dafa am ñoo xam ne nii dafa mel dañ leen a gëlëmal te gëlëmal gi ñu leen gëlëmal waaw lii ngeen di wane day tax ñu yeewu ak wax ji ñuy dégg boo tax na ñoo ngi santaar sëriñ bu baax a baax mbokk yi gis ngeen ñi ñoo ngi àndoon ak yéen booba ba léegi ci fii ci tooli sëriñ Saalix yi ñu mel ne nag liggéey bi nañ leen ko toppale woon daal nay mat sëkk ndax euh, li nga xam ne moo di xel koom jaaga daal di nay jeex euh, sëriñ Saalix euh, sëriñ Seex Saalix Mbàkke nag daal di koy woote woon ci am ngóob mu am solo waaye ñii di taalibe yi tamit daal nañ fi wuysee ab pasteef bu mat sëkk ndax démb rek lañ fi daal di ñëw waaye nag daal nay liggéey bi daal nay jeex ba tax na gis nañ ne nit ñi ñenn ñi ngi ci kaw oto yi di ñibbi ñenn ñi xaar ñi ngi ëlli di añ yi ñenn ñi tamit ñi ngi daal di dallu waaye tamit loolee lépp tamit muy liggéey boo xam si ne ba am solo la muy ngóob moo xam ne sëriñ Salif Mbacke sëriñ Cheikh Salif Mbacke moo ko woote moo ko woote si woon waaye tamit kii di sëriñ euh, Salif Thioune euh, nangu ndigal tamit gis ngeen ko ndigal jëfe rek ba tax na tamit moom tamit fekkoon nañ ko ci ay toolam Euh, ba seet si tamit cantaakoon ñi ni ñu nekk ci biir waa ñi muy Pastef bu mat sëkk rek 24 actu yi nii rek lay daal di demee bëggul dara raw leen ba tax na tamit ñu daal di wàccoon fii ci xel Xelkom jaaga ngir toppal leen tool yi ndax bañ dara rëcc leen lépp nag ànd nañ kook yéen ba liggéey bi mat na sëkk ñi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dox daje ci beneen jotaay